ramadaana ngi weeru yërmande ramadaana ngi weeru njéggale ramadaana ngi weeru yërmande ramadaana ngi weeru njéggale mooy gan gi alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزرنا علما بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبين ليرال البندورك جي لو خمني دفي جالون ci benn tontu buñ doon tontu koo xam ne dafa jógoon dal ci kaw suñu ay référence yi nga xam ne moom la ñuy sukkandiku pour xam jàngale yonent bi alayhi salatu wasalaam mooy ay téere yu màgg yoo xam ni borom xam-xam yi dañ koo taarif ci xadis yonent bi alayhi salatu wasalaam di ay téeméeri téeméeri téeméeri téere yoo xam ne xadis yi mi ngi ci ñu settantal ko càmbar ko bind ko ci ay càllale yoo xam ni góor ña ko solo kenn ku ci nekk dañoo jàng dundam xam ko xam mbiram lijjanti ko ci wàllu mànduteem ak wàllu mokkalam ak ni mu nettali jële ci ay sëriñam jàng ko ba ci baat yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ñu ko tuddee siyawul ada wal wa taxamul muy alfaadul ada wa taxamul ñu xool ko ci timit li ñu tuddee tuulul mulazama ak al itqaan mooy ñi ñu doon tuddee tabaqaat yi nga xam mooy tabaqaatu ruwaat anil mashayikh mooy xam sax kenn ku ci nekk ni nga taqoo ak sa sëriñ ak li nga yàggee ci wetam jàng ci moom xam-xam ba xam bu fekkente ni sëriñ boobu nga jëlee ci moom yàgg ña nga bokk jàngandool ci moom da ngeen a wute li ñu daan tuddee ixtilaafu ruwaat danga dangeen a wute ci ni ngeen nettali xadis bi kan ci yéen moo gën a yey ci ñu jiital ko ci moroomam lu mel ni ñu daan tuddee asxaabu zuhri ñi nga xam ne ñu daan jëlee xadis ci kenn ci kàngaam yi borom xam-xam yi xadis yi bu ñu demee ba seen biir am wute bu ci am naka la ñuy xoolee li ñu tuddee qarainu tarjix mooy ñi ñuy jiital ci ñeneen ñi yooyu yëpp ñu ko doon jàngat bàyyiwuñ ci benn sew-sew ci yooyu جانغ لين تودي علم العلل موي علل ليغا خامتاني موي اخطاء الروات اوهام الروات ييغا خامتاني ني دان جوم تي سين جوم تي دان نيك لو نيو لول بوبو امي نيك لو خامني دو نيه فينال نيكو دان جانغات ديكو لاج نيغا خامني نوي جهابذه العلماء دي فوري ييغا خامني نيو خامون حديث يونس عليه الصلاه والسلام بو ba xam bu baax a baax itam ñi nga xamante ni ñu daan solo xadis yi kenn ku ci nekk sa xadis fii ci problème mën a nekk ak li nga ci wax loo xam ne wute nga ci ak ñeneen wute boo xam ne waruñu koo mën a nangu loolu yëpp ñu ko daan leeral mu nekkoon xam-xam yu sew yoo xam ne dafa sax jaaxaloon nit ñi nit ñëw jël yooyu yëpp ŋàññe ko saago ko offensé jullit ñi wax ci ay wax yu doy waar benn jaamu yàlla bu di jug di ko tontu. ngir défendre dëgg défendre sunna tudd tudd ma turam tudd ma turu yoonam bu mu nekk waaye wax naa ne am na lu muy gëm di ci askanoo loo xam ni bu ko nangoo gëm warta mën a ŋàññi buxaari warta mën a gàññi màññ muslim kon dama ko wax am tariqil ilzam ilzam mooy nit day gëm dara walla mu wax dara nga sukkandiku ci lu mu wax pour am loo xamante ni bi danga nga ko koy imposer tiiñal ko ci muy waxu tiiñal boo xam ni ba ma koy def itam bañ naa ko ba tudd ma kenn léegi li ma mënta comprendre mooy naka la ay nit mën a jóge loolu metti leen ñuy scandaliser wu ci loolu nga xam ne wax naa ko ba gis kenn jóg sax di bind nee naay dafay bind di naqarlu ak di ñaawlu wax joo xamante ni bi nee na dama ko wax ci wax ju ñàkk ker sa jëm ci seen sëriñ te bi ñuy dal ci kaw sunna yonent bi alayhi salaatu salaam di ko saaga di ŋàññ di wax ci kàngaam yi boroomi xam-xam yi fi jàlloon jël seen dund yépp jeexal ko ci défendre yonent bi alayhi salaatu salaam ñu toog ne pat tudduma tur waxuma kenn dara ka doon waxal moom laay wax ak ay mbiram di ko tiiñal ci ne bu mënee gëm lii naka la mën a weddee lii loolu lañ tuddee ilzam ci luñ tuddee alxiwaarul ilmi ay nit jóg di wax ne dama wax dama wax diw dama ñàkkee kerse diw dama wax diw ay wax yoo xam ne tegginuwul dama dal ci kaw diw ba di ko ñaawlu di ko naqarlu bay bind ay ay ay mbir di ko tasaare léegi loolu est ce que du quand même am lu mu wane est ce que du am lu mu wane ci loo xam ne waxoon nañ ko ci biir waxtaan wi ci ne lii kii wax nii ci ay ñaawteef jëmale ko ci loo xam ne njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam la te ñun ñëpp ñuy ay jullit bokk ko fu ñu toll di wax suñu mbëggeel ci moom ba di ko feete di wax ne mbir mi yépp moom la fu ñu toll naan ñoo bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa fu ñu toll di ko tagg ak di ko kañ bu nit mënee jóg ñëw fekk njàngaleem mi mu fi bàyyi ay saxaabaam yi ko jàng ci moom sonn ci jàng ko mu leen doon wax naan balligu anni walaw aya wa xadditu an bani israila wala haraj wa man kadaba alaya mutaamidan falyatabawa maqaadahu min annaar jottali leen li ngeen jële ci man ak lu mu néew néew mën ngeen a nettali jële ci ñeneen ñu dul ay jullit di banu israil yi dara newu ci loo xam da ngeen koy def liñ tudde istinaas mooy lu leen di dolli rek ay gendeeku ci yenn yu jiitu woon du la ngeen di sukkandiku ci seen diine waaye ku ma waxal lu ma waxul na waajal wàcc waayam safara saxaaba yi jëfe loolu ci ginnaawam jàngale diine ji jàngale sunna yonantu bi alayhi salaatu salaam ci anam ba gën a mat yàlla tàggat ay góor ñu jël seen dund jeexal ko ci sàmm loolu loolu dëggal yàlla wax ne inna naxnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun yàlla mooy sàmm diineem ji tàggatal ko ay nit ñu ñëwoon di wax ne inna hada al ilma diin fanduru amman taaxuduuna diinakum mbir mii ngeen di jàng di xam-xam bii di xam-xamu xadis diine la xool leen ci ku ngeen di jële seen diine alimaam malik daan wax naan inna hada al ilm damuka wa laxmuka wa anhu tusalu yowma alqiyaama diine jii mooy sa deret di sa yàpp yaram te ëllëg yowma alqiyaama moom lañ lay laaj mooy dafa foor ba àgg ci nga war koo jàppee ni nga jàppee sa deret ak sa yàppi yaram te yowmal qiyaam moom lañ lay laaj kon du lu ñuy fowe du yëfi caaxaan bu nit mënee nekk ci réew mi sol ay dàllam kaalawoo kaalam plateau télé bu nekk mu dem fa yi gën a nekk yu sacré ci diine mu koy bafuwe di ko offensé di dal ci kaw jullit ni lu ko neex di ko wax di ko jëmale ci lislaam ñépp toog fi ñu toog kenn waxul nit jug wax lu mat presque daanaka jege na deux heures de temps ci conférence kenn dégg ko mu ŋàññi kenn dégg ko mu saaga kenn dégg ko mu tudd tur lu dul ne dem na ba ca njeexital la xëy na sax du lu mu jublu ngir boppam moom walla dara waaye ngir dimbali ko yàlla ngir tëj làmmiñu kooku di wax ak wan nit ñi ne li muy wax tegu ko ci xam-xam tegu ko ci màndute wax ay kàddu tiiñal jëmale ko ci moom ci ne objectivité amul ci li nit ki di wax ndax bu fekkee mën ngaa gëm lii ba noppi di weddi lii la muy tekki mooy kon yow maandu nekkatul ci yow xool ci xam-xam ak ci dëgg nekkatul ci yow ndax lu am ay preuve am ay firnde am ay chaîne de transmission ñi ko nettali ñu xam leen xam seeni turi nday ak seeni turi bay xam fa ñu juddoo kañ lañu juddoo kañ lañu faatu ñu bind ko ci ay téerey téere teg ko fi muy kutubu ruwat di kutubu rijal ñu xam ko bu baax mën caa dellu di ko jàngat yamuñ ci loolu sax ndax xam rek ruwat yi jarxan wa taadilan lenn la mais xam li nga xamante ni mooy seen soluwin alaqa wi nekk ci bayn ruwat mooy li ñu tuddee tisaalu sanad ci tariqatu riwaaya loolu beneen mbir la xamaat tamit naqd bi nga xam ni mooy critique bi nga xam ne dañ ko def li ñu soloo ci lu ci mën a am ci lu ñu tuddee muxaalafa lu ñu mën a tuddee tafarrut shudud wala nakaara ci yenn feebar yu ci mën a am yoo xam ni même ci kaw boo xooloon ni wér na da ngay gis ne feebar mi ngi ci xadis bi ba duñ ko jël loolu yépp boroom xam-xam yi liggéey ko ñu def ko critique boo xam ne bu sérieux la pour mën a xam ndax dañuy jël xadis yi xadis yooyu ñu nettali war ñu ko jël téere yooyu ñu bind ka ko bind tëbul tëb ñëw génne ko ci poosam génne ko bind ko da ko fay fekk ñu ko doon soloo xam ko mu nekk ci ay téere mu soloo ko comme ni ko ñeneen soloo ñeneen ñëwaat ci ginnaawam soloo ko jaare la ko sax ci yeneen chaîne yeneen yoon yu bokk ak moom yam solo téere yooyu xadis yooyu kon mënoo ko cee weddi moom ndax du yëfi boppam joo xam ne da caa wéet boo ko ca saaga wax ko wax ko ci lenn waxuloo ko ko moom boroom xam-xam yi kàngaami boroom xam-xam lislaam yépp nga weddi léegi bu fekkente ni loolu am na ñu ne ay jullit lañ di wax fi ñu yonant bi àgg bu mer dee am ak yaradiku dee am ñu war koo jëmale ci foofu wax ko mu leer waxuñu ne pat ba nit jóg di leeral loolu ndax wax na lii kàddu yi ma wax léegi ay nit jóg ne aha ma ngay dal ci suñu kaw ma ngay dal ci suñu sëriñ ma ngay weddi sëriñ ba ma ngay xas sëriñ ba ma ngay ŋàññi sëriñ ba ci ban àdduna lañ nekk ci ban àdduna lañ nekk ay waxi ŋàññi ak ay waxi saaga incha allah du suñu doxalin kenn duñu ci dégg te ku mu neex na delluwaat ci vidéo bi ñu wax ba xam dina dégg ñu tudd tur wala ñu wax lenn loo xam ne mënees na koo jàppee ñàkk teggin wala ñàkk kersa jëm ci nit ku mu mën a doon waa ja nga xam ni moom la wax ji jëm ci moom moom lañu doon waxal bu ñu yemalee wax ja fañ ko yemale xayrun waaye nag bu ñu ko bëggee jël commencé di ci wax yenn wax yi daf ñuy gën a rek dëggal ci li ñu waxoon ci ne kenn ku nekk yaa ngi toog yor sa yëfi bopp moo ngay xaar ku ko laal waaye li nga xamante ni moom lañu bokk te mooy yàlla ak yonant bi di alxuraan ak sunna lu neex waaye mu wax ndax kenn jàppul na sa yëf la loolu nag problème la ci ni ñuy dundee lislaam fii ci senegal kon doxalin yi ma gis ak wax yi ma gis du def lu dul feddali loolu te loolu war nañ koo bañal suñu bopp lii laa amoon ci loo xam ne ma koy indiwaat ci précision li ci des nag nañ ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu mottali ko nekkuñ fi di bëgg di di di di di di euh, bàkku walla di dëkku kenn nekkuñ ci làmb duñu ay mbër ci xam-xam lañuy yëngatu xam-xam moo ñu yar dafa am mbir yoo xamante ni mënuñu koo bàyyi muy continuer suñu diine ji moo ñu gënal suñuy bakkan gënal ñu suñu alal gënal ñu suñu deret gënal ñu suñu njaboot bu ñu ñëwoon ne daf ñuy agressé dañuy taxaw défendre suñu bopp kon mënuñu toog nekk fi di wax ne diine ñor nañu dañuy défendre diine nit nekk fi ci dëkk bi di saaga diine guddi ak bëccëg lu ko neex mu wax ko di yàq xelu nit ñi ci diine yàlla ji ñu toog ne patt di ko seetaan dinañ ci def lu ñu mën te dimbali ko yàlla subhanahu wa taala ngir leeral fi dëgg féete leeralal jullit ñi ne li muy wax waxi yàq la waaye teguwul ci xam-xam loolu ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi am kàttan am mën-mën yàlla dimbali ñu ba condition yi daje ba ñu mën a toog ba leeral loolu yàlla na ko yàlla def hada wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله Yangi, <laughs> Veru